safaru bansasin junnatun safaru bansasin junnatun safaru bansasin junnatun asalaamualeykum bokki jullit yu tedd yi bokki taalibe nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan fu ñu mën a nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen baalu xaq te di leen baal tey ñaan suñu boroomu boole ak njëggal te dolli noo saxal ci ak jub di la ndokkeel ci weeru tedd wii nga xam ne mooy weeru Cheikhul Xadim di weeru safar wu tedd wii nga xam ne saa buñ ko jubee xel yépp dana am lu mu fàttaliku dana am lu mu xalaat muy liggéey bu rëy boobu nga xam ne Cheikhul Xadim liggéeyal na ko boroomam ba làq ci ngërëm lu rëy loolu yi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku ci fukki fan yi ak juróom-ñett ñuy ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadunil Muntaqa mi nga xam ne moo ko fi nekkal yàlla dolli koo sàmm dolli ko aar kattanal ko te wéral ko ba mbooleem nesir ak naal ak yéene yu yi nga xam ne am na ko ci lislaam yëpp mu sottal ko te lépp ñu ànd ko ak moom di ñaanal njabootu Cheikhul Xadim gépp waaye di ñaanal mboolem jullit ñëpp suñu borom defal ñu tawfiix bu baax ñu fas yéene ak yéen nag ci tomb bu am solo boo xam ne dafa bokk rek ci waajtaay ñuy waajal bésub seexul xadim boobu muy bis boobu mu liggéeyaloon boroomam ba laq ci ngërëm looyu loolu saa ñëwee ñu war a nafaraat lenn ci dundu seexul xadim waaye lenn ci jikko yi lislaam yi nga xam ne war nañ di ko fàttalee waxtu wu nekk ngir nit ñi di ko bàyyi xel waaye rawatina bu bis bi jubsee ndax day benn tomb ci tomb yi nga xam ne mën nañu wax ne moo ëmb ngërëm loolu nga xam ne sëriñ bi làq na ko ci liggéey bi ba tax yàlla gërëm ko ngërëm loolu dafa bokk ci jikko yooyu mu bi ñu bëgg waxtaane tey te mooy euh, njariñ li nekk ci muñ dogalub yàlla waaye gërëm dogalub yàlla kon tomb boobu lañ bëgg waxtaane muy importance bi nekk ci muñ dogal yàlla yi waaye gërëm ko itam mu mel ni ci biir li ma wax des na ci déggee ñaari tomb muy tomb muñ mu ngi ci waaye tomb gërëm mi ngi ci kon ñaari mbir la yoo xam ne dañ koo boole muy benn ngir duggante gu ñu duggante waaye lu ci nekk mën naa beeru nekk tombu boppam bu ko defee kon bu fekkee dañoo tànn lu aju ci muñ dogal yàlla ak gërëm dogal yàlla di ko waxtaane ci biir waajtaayu màggalu Cheikhul Khadim gi màggalu Touba day mel ni li ko waral rek mooy jëfe goo xam ne Cheikhul Khadim jëfe na ko ko ndax ku ne xam na ne ba mu ne rek nabbahtukum maan ala kaddin bada lii qabla an ara ridan maa ngi leen di yee ngeen xam ne njëkk may am ngërëmul yàlla lu sax lii dafa am coono boo xam ne moom laa teel coono boobu nag ku ne xam ne ne muñ gum ko muñ yëmu ci waaye gërëm gum ko gërëm moo tax yàlla faye ko ci li mu ko fayee kon loolu moo tax ñu tànn thème boobu ngir Cheikhul Khadim jëfe gum jëfe tomb bii ñuy waxtaane te war a doon exemple royukaay ci mboolem murid yi waaye rawatina mboolem julli ñëpp ñëpp kenn ku nekk war ngaa jàngat dundu Cheikhul Khadim ci digganteem ak nattu yi ko yàlla tegoon ak muñ gum ko muñ gërëm gum ko gërëm ba yàlla fayee ko lii nga xam ne moom la ko fayee loolu moo waral ñu tànn thème ba bu ko waxtaanee bu ko defee thème bi kon dañ koy seddale ci juróomi xaaj bi ci njëkk mooy danañ xamle baat yooyu ñu tudd bi ci njëkk mooy muñ waaye ñaareel mooy gërëm ndax lu ci nekk rek waras naa xam dëgg-dëgg mooy lan door a wax nag nu ñuy muñe dogalu suñu borom tabaaraka ko taala waaye nag gaa yu baax yi nga xam ne Euh, jaaroon nañ fi ñu leen di wax asalafu saalih taxawaay yu am solo yi nga xam ne taxaw nañ ko ci muñ ak dogal ba kii ci mujj ñu koy fàttali ko tey di Cheikhul Khadim jëfe gum ko jëfe ba lax ci ngërëm li mu li li ko yàlla gërëm waaye nag ñu wax nag Cheikhul Khadim ci boppam moom ban taxawaay la amoon ci dogali seen borom yi ak gërëm gum ko gërëmoon waaye muñ gum ko doon muñ waaye wax nag meññat mooy njariñ yi nga xam ne nag mën na caa juddoo bu ko defee daal di tëj waxtaan wi loolu kon la ñuy fas yéene indi ci ak tënk incha allahu taala ab dogal ñu koy xamle euh, dañuy wax ne mooy li yàlla suñ borom tabaraka wa taala di nattale di ko teg ci kaw jaamam ñi buñ ne jaamam ñi mbindeefam yépp dugg nañ ci nga xam ne mboolem àdduna ak li ci biiram mi ngi dox ci dogal yi suñ borom tabaraka wa taala ndax yàlla suñ borom tabaraka wa taala mooy dogal mbir mu nekk nattale ko nam ko soobee inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadar nga xam ne amul menn mbir muy dox rek lu dul na suñ borom tabaraka wa taala mooy nattale loolee nam ko soobee muy doxee nam ko bëggee lépp nag mu teg ko ci xikma moom suñu boroom te mooy xam gum xam ne lii muy doxal ni mu koy doxale noonee rek la gëne ndax suñu borom tabaaraka wa taala lu mu def rek day fekk mooy la gën jaam bi xam ko wala mu ñàkk koo xam bu ko defee loolu mooy li nga xam ne mooy ab dogal li ñuy wax alqada di ko firi alqadar ci langue waaye bu dee ci wolof moom la ñuy wax baat bi moo ëmb ñaar yépp te mooy alqada wala alqadar lu ci ma doon dogal suñu borom tabaaraka wa taala boobu nga xam ne mbir muy am ci lay amee loolu lañ jublu ci ab dogal nee na bu ñu xamee lan mooy alqadaa wal qadar te mooy dogalub suñu borom tabaaraka wa taala bi nga xam ne bu ñu ne alqadaa moom mooy wéyal gi yàlla wéyal li mu bëgg a li mu nga xam ne lépp lu dogal ba noppi wéyal nag loolu ñuy tudd alqadaa kon alqadar mooy dogal gi mu koy dogal ne lii dana am alqad alqadaa nag mooy wéyal gi muy wéyal loole ci coobare moom suñu borom tabaaraka wa taala loolu benn la ci xeeti taarifaat yi nga xam ne boroom xam-xam yi am nañ ko ci baatub alqadaa wal qadar léegi nag bu loolu xasee am la ca war jaam bi mooy mu muñ ko muñ moo jiitu ndax ku ne xam na ne muñ dara yu rëy la waaye li muñ di rëy rëy nag gërëm da koo gën a rëy te mooy ar-ridaa muñ ab dogal mooy lan mooy nit kii téye boppam ba nga xam ne bu yàlla dogalee dara du ca mer donte mettiitu dogal ba mën naa dal ci kawam muy tiis bu ko dal lool waaye mu mën a muñ ba téye boppam ba du génn ci làmmiñam lenn luy wane ne lii ko yàlla teg da ko naqari waaye nag bu tee mu bëgg ci xolam nag yàlla teggal ko loola maanaam bu dee ah, ah, muñ moom mooy li la yàlla teg mën naa metti lool nga di ko muñ muñ goo xam ne doo wax mukk wala nga jëf luy wane ne lii naqari na la waaye ca sa xol moom da nga mébét yàlla teggil la lii na ci yow waaye nag say cër moom da nga ko téye ba lenn luy nuroog saalit ko def kon buñ nee muñ mooy loolu su ko nag mooy la yàlla teg da ciy ànd ak féexu xol nga xam ne yow da ngay bégg sax lii la yàlla teg doo mébét doo bëgg mukk yàlla teggi la loolee ci sa bëgg boobu da ngay bàyyi coobare yàlla lu mu def mu gënal la nga xam ne doo toog mukk sax bis di xalaat ne aka neexoon yàlla teggal ma li ma dal donte yaa ngi yëg aw mettit waaye nag gërëm gi nga gërëm dogal bi mooy dem di ko woyefal di ko woyefal ba day mujj loola nekkoon aw mettit yow day mujj nekk mbégte ak bànneex ci yow bu ko defee kon gërëm moo gën a rëy muñ ndax muñ moom yaa ngi doon bëgg yàlla teggil la ko ci gërëm nag mooy ni ko yàlla dogale moo lay neex ba doo xalaat sax mukk bis yàlla teggil la ko kon ñaari baat yi loolu mooy seen différence ginnaaw bu ñu xamee lan mooy alqadaaw ak lan mooy alqadar bu ko defee nag ku mel ni Abu Talib al makki yi nga xam ne ku Cheikh Mahamadul Basir di tudd la ci Minal Baaxil Xadim bi muy xamle lan mooy muñ it taarif bi mu ko taarif sa réewte bi ñu waxoon mooy nit ki daal téye boppam ci jëf loo xam ne bànneex lay doon nga xam ne lépp luy bànneex sa xol bakkan da koy xëcc jëm ca waaye nga téye sa bakkan ba jëm loolu bokk na ci muñ not sa bakkan ba mën a jànkoon jànkonteeg moom not ko ci muy jëfe li nga xam ne moom la suñu borom tabaaraka wa taala digle ngir làq ci ngërëmam waaye itam nag fexe ba sa bakkan du la rëcc mukk jëm ci tere yi suñu borom tabaaraka wa taala yi sax dàkkee ci di ko topp ànd ak muñ ga nga xam ne moom ngay muñ ci mettitu topp yàlla nga xam ne xeeti foqale yi nga xam ne bakkan da koy bëgg di bëgg di yóotu loo xam ne yàlla gërëmu ko yooyu yëpp nga téye ko ba du ca dox jëm ndax yooya bu ca jëm doxee jëm dangay ngay daal di ñaawal ay teggin sa diggante ak sa borom loolu lépp nag nit ki téye ci bopp ba du ca dugg Abu Taalib al-Makki nee na loola mooy muñ nga xam ne da ngay rafetal sa jëflante ak sa borom ci teggin yu rafet yoo xam ne lépp lu xeetoog rëcc jëm ci lu yàllay tere doo ko def da ngay téye sa bakkan rëcc jëm loolu kon moom noonu la ko xamlee bu ko defee nag jëmmi muñ ñu wël ba di ko sedd la rek muy ay daraja yu bari ndax sëñ sëñ Muhammadul Basiir ci Minanul Baaqil Xadiim nee na buñ xoolee borom xam yi seen wax danañ ci mën a jële ñeenti maqaama ci muñ am na muñ goo xam ne muñuk ñi maandoo lañ koy tudde te mooy ñi nga xam ne saa buñ leen tooñee dañuy dellu ci yàlla rek bàyyi ak yàlla waaye nag du tee lépp lu ñu ne def mënees na koo fa mën nañ koo fayoo ci fayu goo xam ne gu toll ne gañ leen tooñ lay doon mooy commande nga xam ne moom suñ ko tooñoon dana bàyyi yàlla tooñ gañ ko tooñ ba du jalgatul ëpp lañ ko tooñ waaye nag dana fayu fay gu toll ni gañ ko tooñ wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha kon loolu mooy ñi nga xam dañoo maandu am muñ goo xam ne nag moom la tudde muñuk ñi nga xam dañoo wakkiilu sukkandiku suñu borom tabaaraka wa taala te mooy ñi nga xam ne suñu borom a ngi wax ne ñoom dañ naan wala nasbiranna ala ma aadaytumuna wa ala allahi falyatawakkali mutawakkiluun ñun daal lépp lu leen ñu lor dañ koy muñ te sukkandiku suñu borom tabaraka wa taala te mooy yàlla waxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko wa daadehum wa tawakkal ala allah lor yi ñu lay lor bul ko faale bàyyi leen rek te sukkandiku sa borom tabaraka wa ko defee ñooñe it la yàlla tagg ne fa man afa wa aslaha fa ajru ala allah ñi nga xam daal bu ñu leen tooy ñoom duñ fay waaye dañuy jéggale te muñ ñooñe seen daraja seen fay yàlla moo ko warlu wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu kon loolu mooy ñi nga xam ne muñuk mutawakkiluuna lañ koy tudde te mooy ñi nga xam dañoo sukkandiku seen borom am na muñ gu ñu tudde it muñuk way gërëm yi nga xam ne moo googa moo gën a rey ñaari ñu weesu woon te mooy ñi nga xam dañuy muñ dogal yi lépp lu yàlla atte ci ñoom ñu muñ ko muñ gu rafet te ñooña mooy muñ gi nga xam ne mooy muñu yonente yi alayhim salaatu wasalaam ak ñi ñëw ñëw seen ginnaaw ci ay daraja te mooy ñi nga xam ne ñoo ñëw seen ginnaaw ci ñu baax ñu yàlla tànn ba ci salafu saalih ak nañ rawante ci ay daraja kenn ku nekk ci muñuk yonente yooyee ci la yàlla joxoon nga di ko muñ sunu borom tabaaraka wa taala nag nii nga xam noonu la dogalee séddalee ko daraja yi wuñ ci coobareem ak xikmaam loola it jaam bi daa war a xam ne noonu la muñ yi di ëppantee noonu la tolluwaay yi di di ëppantee bu ko defee kon suñu borom ko wa taala nag bu ñu bëggee xam nan la ñuy muñ ab dogal ginnaaw bu ñu xamee lan mooy alqada wal qadar xam lan mooy muñ xam itam nag lan mooy arrida muy gërëm léegi war na ñoo xam nag jaam bi su fekkoon ab dogal dal na ko su ko bëggee muñ ana nan lay def li jiitu daal mooy jaam bi na xam ne sunu borom tabaaraka wa taala moo bind jaamam ñi te sañ a ci ñoom lu ko soob te bu xasee atte mbiram amul kenn ko mën a delloo yàlla atte kenn ku mën a dox diggante borom bi tabaaraka wa taala ak lam nam mu su boobaa nag bu jaam bi xamee loolu la ko war moom mooy mu nangoo waajal boppam ngir muñ lépp lu yàlla indi su ko mënee sax na weesu muñ waaye na àgg ci gërëm loolu nag dana tax mu am ab cër fa sunu borom tabaaraka wa taala te mooy cër bi mu dikk ñi nga xam ne bu leen tegee ab natt ñu muñ ko duñ yem ci muñ ko waaye dañuy dellu ci borom bi tabaaraka wa laa ngir wane ne lépp lu ñu dal yàllaa ñu ko teg te ci moom la ñuy dellu képp ku bëgg am ci cër booba nag loola dana ko soññ ngir mën a muñ ndax boo yégee ne am na lu yàlla dig muñkat yi dana tax yow nga góorgóorlu mën a muñ kon lii tax jaam bi mën a mu yëg ne am na yàlla dig muñkat yi te mu bëgg ca cër boobee tax mu góorgóorlu ngir bokk ca su ko defee lu ko dal dana ko muñ ngir bàyyi xel ngëneel yu rëy yooyu nga xam ne suñu borom tabaaraka wa taala dana ko faye ñi nga xam ne ñooy jéem a góorgóorlu ak a muñ mooy li suñu borom wax ne wala nabluwannakum bi cheyin min alxawfi wal juuci wa naqsin min al amwal wa naqsin min al amwali wal anfusi walthamarat wa bashir alsabirin alladina ida asaabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun aaya boobu suñu borom mi ngi wax ne faaw ñu leen di nattu ci ay mbir yu wuute mën naa doon tiitaange joo xam ne seeni noon man lañ leen koy teg wala ngeen tiit ci seenu dund tiit ci seen adduna tiit ci njàqare yoo xam ne da leen dikkal ci wet gu nekk te loolu jamono ju nekk duñ dañ di ko gis waaye mën na leen a nattoo it ab xiif mooy jamono naqari ngeen bëgg ay xéewal mu manqué taw bi manqué ak yeneen ak yeneen waaye mën na leen a nattu yi ci alal yi manqué moo xam day lakk wala muy réer wala ñu koy sàcc mën na leen a nattu yi ci ay bakkan yi faatu accident yi ak yeneen ak yeneen waaye mën na leen a nattu ci ay meññat yoo xam ne da ngeen ko doon yaakaar mu mujju merut na ngeen ko bëgge ak yeneen ak yeneen yoo xam ne jaam bi jamono ju nekk ni ngi koy gis ci ci ci ak dundam yooye yëpp nag na jaam bi gëm ne yàlla rek moo ko dogal amul loxob kenn ko ca dem kon bu kenn jàpp ne loxob kenn dugg na ci mbir lu dul ne coobare suñu borom tabaaraka ko taala rek moo cay daw bu ko defee nag kon yàlla wax yonent sa aleyhi wasalaam ne ko nag déggalal muñkat yi te mooy ñi nga xam ne musiba yii ma tudd bu leen ci benn dalee ñoom dañ naan ñun daal jaami yàlla lañ ci yàlla lañ bàyyi ko ci moom la ñuy delluwaat kon ñun amul lu yàlla dogal neex nañu mu ne ko ñooñee nag xéewal la leen yàlla defal ak yërmande joo xam ne bu ëllëgee bis penc fii ci àdduna sax lay tàmbalee waaye ëllëg bis penc ñooñee it la yàlla tuddi al muhtadu mooy ñu gindi ko tege ak jub te ku ne xam ne nag gindi ko ak jub rek mooy li jaam bi war a yittewoo ndax mooy liy jariñ ëllëg bu ko defee kon nu ñuy muñ ab dogal mooy loolu mooy nga gëm ne am na lu yàlla dogal loo xam ne mbindee mbindeef munu koo tee am faaw day am su dikkee nag la la cay dimbali mooy nga muñ ko ngir jot xéewal yooyu nga xam ne moom la ci yàlla diggee waaye muñ ak gërëm ab dogal day daraja ju kawe lool ndax bu fekkee ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ci xadis ne ci xadis ummu salamata radiyallahu anha wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa min abdin tusibuhu musibatun fa yaqul inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma ajirni fi musibati waxluf li xayran minha illa ajarahu allahu taala fi musibati wa axlafa lahu xayran minha yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daa wax ne amul benn jaam boo xam ne yàlla dana ko teg musiba ci musiba yi mu wax ne ñun daal ci yàlla lañ del bàyyi ko ci la ñuy delluwaat te mooy bàyyee sa bopp yàlla yemu ci waaye mu wax ne yàlla yàlla nanga ma yoolal nag ma yoolal ci sama musiba mii ginnaaw boo xam ne xet li nga ma ci ma noppi te nga wuutalal ma kat lu gën musiba mii nag ma xet li ci musiba mii te wuutalal ma lu ko gën yonent bi aleyhi salaatu wasalaam amul jenn benn jaam bu musiba daal wax loolu lu dul ne yàlla dana ko defal tiyaaba ca musiba moomee nga xam ne muñ na ko muñ gëm muñ waaye dana ko wuutalal lu gën loolee umu salamata mi nettali lii nee na damaa mas a ñëw yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi aba sala abu salamata bi mu faatoo nga doon borom këram bi mu faatoo ma ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko wax mu digal ma ne ma waxal lii waaye ba ma ko waxee teewul maa ngi am si sàkk xol sax ci aboo salamata ak ni mu baaxee daal fu may jëlee góor goo xam ne gën na ko nag waaye ci li yàlla dige ak ni nga xam ne noonu lay teewale ab digam ndax du wóotalum dige Abu salaamata moom bi mu wàcceeb liggéey bañ ca teg ab diir yonente bi sallallahu alayhi wa moo denc soxna soosu di Ummu Salamata ñu xam ne kon ki gën ci mbindeef yi moo denc Ummu Salamata mii nga xam ne doon na am yaakaar ne du am ku gën borom këram bii Abu Salamata kon loolu mooy fay gu teew gu gaaw goo xam ne yàlla fay na ko ko ci musiba mi ko dal te muñ ko muñ ko rafet kon loolu it mooy li yàlla digi ab jaamam te moom li muy mooy li mu koy fay itam ñu xam ne nag kon muñ ak gërëm dogal lu ci ne ñaari daraja yu kawe lañ yoo xam ne wóote nañ bi ci njëkk mooy gërëm moo gën a jafe moom nag dara ju kawe la lool ndax li suñu borom tabaaraka wa taala wax ne amul musiba muy dal nit lu dul ne ci coobare yàlla lay amee waaye day ki gëm yàlla ci musiba moomee doyloo yàlla woolu ko yàlla moo koy gindel ab xolam ba nga xam day wommatul yàlla ci mbir moomee waaye itam day gërëm dogal bi ko yàlla dogal maa asaaba min musibatin illaa bi iznillah wa man yumin billahi yahdi qalba nga xam ne képp ku gëm yàlla gëm gu wér su ko musiba dalee it yàlla moo koy wommatal ab xolam mu nangoo wommatu gëm ne lii yàllaa ko dogal du ca yam du ca yam waaye mu gërëm ne lii lu njariñam rek ci nekk loolu nag moom la salafu saalih ñu baree bari daan waxee di firi ay baat yoo xam day wane ni ñoom day ko xamoon ab dogal yàlla mel ni sax ñu ko daan yóotu ndax àggoon nañ ci buñ toogee diir bu yàgg te dara dalu leen sax dañuy tiit ni ko sëñ Tuubaa indee ci Masaalikul Jinaan ñu baax ne buñ masaa toog diir bu yàgg te am nattu dalu leen dañuy tiit ci seen bopp jàpp ne ñoom daal def nañ yàlla lu tax mu mere leen dogalu suñu borom tabaaraka wa taala la ñu woon bu ko defee nag kon ku ñuy wax alqama bi muy leeral aaya boobu ci dégginam daa wax ne mooy musiba muy jot jaam bi mu xam ne lii fi yàlla rek la bàyyi ko mu wammatul yàlla gërëm ko kon loola it lu jaam bi war a bàyyi xel la mooy lépp la dal nga gëm ne ci yàlla rek la mën a bàyyi ko nga muñ ko waaye itam na nga gërëm ko abu darda day wax ne yàlla suñu borom tabaaraka ko taala saa bu dogalee mbir lam bëgg moo ñu gërëm loola kon yàlla bëggut mu dogal dara ñu lii wartoon am wala ñu koy naqar wala ñu koy tiis yàlla bëgg loolu abu darra neen yàlla li bëgg mooy lu mu dogal rek ñu ko te ku ne xam na mi yilif sa kër rek boo sañoon lépp loo fa dogal ñëpp dañ koy rafet ne ànd nañ ci waaye boo sañoon doo àtte sa kër dara sag jaboot jóg ne lii nga def ànduñ ci wala nangam ak naam donte ab jaam doo nga muy matadeeka juum léeg-léeg kon nag rawatina yàlla mi nga xam ne du juum mukk du jaawale lu mu def moo gën nee na nag saa bu dogalee dara lam bëgg mooy ñu gërëm loolee te ànd ca ak moom wammatul ko wammatul rafet ku ñuy wax ibnu mas'ud radiyallahu anhu daa wax ne su borom tabaraka wa taala ci maandu gi maandu ci la defee noflaay ak mbégte mu nekk ci woolu ak gëm dogal nga xam ne jaan bu ko yàlla net tegee am mu gëm ko te wóolu ne lii ci yàlla bàyyi ko am noflaay da ko cay da ko da ko cay daa dikkal bu gaaw na nag njàqare ak ngi ci yàlla dogal dara mu di la naqare ak ngay sikk sàkk naan ndax lii ci yàlla bàyyi ko wala diw def na ci dara ibnu mas'ud nee na képp koo xam ne ab dogal ñëw na ci yow ngay sikk sàkk lii ndax doomu aadama def ci dara xamal ne loola njàqaree cay doon topp ak tiitaange waaye itam merum suñu borom ko wa taala waaye na bu ko yàlla dogaloon nga gërëm ko nangu ko wóolu ne mbindeef du ci dara neen da ngay gis noflaay bu gaaw dalay la dikkal ci gërëm googee nga gërëm mbir moom ak nangoo ko nangu Omar ibn Abdul Aziz moom danaan wax ne man day mosumaa xëy mukk di am mbégte lu dul ne dafa am barab man dafa am dogal bu yàlla bu wàcc ci man saa bu ma xëyee am mbégte rek dafa fekk ne am na dogal bu yàlla dogal ci man muy ab natt dal ci sama kaw loola daal moo may bégloo nga xam ne moom bég mbégte yi mu daan am yëpp mi ngi ko daan jëlee ci nattu bu ko seen borom tabaraka wa taala teg niki noonu tam wax na ne man day musuma nekk ci mbir moom Omar ibn Abdul Aziz mi ñëpp xam ci maandu ga musuma nekk ci menn mbir ba yàgg may mébét naan aka neexoon ma génn ci li ba dugg ca lee loolu mooy gërëm dogal mooy lu ko yàlla teg rek day gëm ne loolaa gën ci moom waxtu woowee ko yàlla tege ba du bëgg a génn ci loolu jëm ci leneen wuuteeg ñun ñi nga xam ne li gën a bari mbir mi nga nekk doo ko bëgg dangay ngay génn ci la ba ne ci leneen moom nag nee xëy mukk ne ci mbir naan ak a neexoon ma génn ci li dugg ci leneen niki noonu itam bi suñu borom tabaraka wa taala ne man amila salihan min dakarin aw unsa wa muminun fala nuxiyannahu xayaatan tayiba képp koo xam ne daal jëf na lu baax moo xam góor na moo xam jigéen te ànd ak mu gëm yàlla danañ ko dundal dund ko teey lenn ci salafu saali ñoom dund ko teey liñ ko jàppe di ko firee gërëm lépp yàlla teg ak doyloo lépp lu yàlla jox kon gis nga ñoom firin yi nga xam daanañ ko am ci aay yi mooy dund gu tey dëgg daal ki ko am mooy ki doylu ci li ko yàlla jox ak lu mu néew néew waaye itam ki gërëm li ko yàlla teg ak lu mu diis diis lu mu metti metti nekki noonu ku ñoo Abdul Wahid ibnu Zayd nee na daal gërëm mooy buntu bi yàlla di gën a ci bunt yi bunt bi gën ci bunt yi boo koy wër mooy loola yàlla teg mu la waaye itam nee na mooy àjjanay àdduna àdduna bu fekkoon am na ajjana nee na àjjana ja mooy lu la yàlla teg rek nga gërëm ko mu neex la waaye nee na noflaayu jaamukat yàlla yépp nag mooy gërëm leen yàlla teg ndax am natt daa mënta ñàkk buñ xamee lii lépp nag ak ni nga xam ne noonu la ko salafu saalih gisee woon ñoom ñu xam nag seexul xadim mii ñi nga xam ne moom lañ jublu bisam te war a waxtaan ak dundam te dundam nga bokk ca la ca gën a rëy muy lii ñuy waxtaan muy muñ dogal ak gërëm ñu xool nag ban taxawaay moom la amoon ci gërëm dogal yàlla yi ginnaaw boo xamee ne muñ na ko muñ gu rafet seexul xadim moom mën nañu wax ne mooy exemple di gën a rëy di gën a leer bi gën a mat sëkk balaay natt yi waaye itam gërëm ko te loolu Cheikh Mouhamadul Bachir ci mel noonu baaxil indi na ci lu baree baree bari wane muñu sëriñ bi ci natt yi nga xam daana ko dal safaru ban sasin junnatun safaru ban sasin junnatun